waaw xaw ma sax man xaw ma fu muy commencer quoi vraiment euh, ça fait plaisir ah ça fait énormément plaisir ma remporté euh, trophée bi ñu mel di ci sant bu baax a baax euh, l'équipe de la 2STV en un mot maa ngi gërëm bu baax a baax suma yaay madame Ndiaye waaye aussi suma papa ki nga xam ne moom moo di El Hadj Ndiaye ñoom ñoo ma jox vraiment euh, li nga xam ni moom moo di kóolute bi wax naa ko léegi léegi ba mu tax ma mën ko gagner ça fait énormément Je n'ai même pas En tout cas, je les remercie. Et je remercie également les téléspectateurs de la 2STV que celles de France Vraiment, ñoom jàpp nañu ci combat après trophée bi lan mooy sa défi tey. waaw comme ni ma ko waxee woon rek ci euh, trophée bi ma njëkk a gagné ci influenceur média de l'année Euh, j'espère bien d'y gagner ay trophées parce que à chaque fois man j'essaie de créer j'essaie de d'innover donc je suis venu à peine mais bëgg naa di gën a gagner ay trophées et incha allahu rabi loolu laa teg sama bët te ci kàttanu yàlla dinaa ko gagner même budul fii parce que man je vise loin donc euh, bu fii di feneen donc euh, incha allahu rabi bu dul Sénégal je précise bien di feneen quoi voilà en tout cas kontaan naa loolu wax dëgg yàlla. xëcc dañuy gis animateurs yu bëri bu ñu commencé am dem yeneen télé yi euh, na génn 2S dem feneen. non je je je je je je vais pas. <laughs> <laughs> ça c'est ça c'est beau grand wala am nañu. am nañu coupe. <laughs> félicitations kontaan naa mon grand kontaan naa merci beaucoup merci remercier bu baax a baax loolu waxati woon. 2S est-ce que sa jóge 2S. non loolu nekkul sama bopp vraiment nekkul sax sama bopp ah je travaille pour la 2STV je suis bien à Euh, là où je suis jox nañ ma gëdd gi fa war émission yi maa ngi ci donc plateau yu mag yi maa ngi ci donc je me sens trop bien même à l'aise là-bas et je compte rester là-bas pour vraiment euh, pour l'éternité. est waaw mais du ci ñàkk ah gars yëpp dañ lay jël du ci ñàkk mais yow yaay góorgóorlu xam li nga bëgg euh, xam li nga xamante ni moom moo di coloré bi la 2 jox ndaxte je jeune sama âge ñu jël ma teg ma ci kanam euh, di ma booster di ma xelal kon aw ma lu dul di leen sant di leen gërëm 2S c'est ma ñu alors ñu ne Kheucha tëddeewul njaaxaanaay genre euh, Wally lay gën a favoriser que yeneen artistes yi lan ngay tontu. que Wally lay gën a favoriser non loolu moom. ñu gi ñee koy wax mais artistes yi ku ci nekk ci man ak ñoom ñi ngi déggante donc link la bu ma am ak ñoom ñëpp dafa fekk ni Wally daf maa yar damaa jóge Ndar ñëw fii tàmbali ak moom waaw mu doon koo xam ni daf ma jàppale ci lu bari kon boo demee ba màgg boo xawee délaissé tuuti rek wala nga xaw a wàññeeku les gens vont se dire que non attends euh, Kheucha dafa wàññeeku wala dara mais du lenn ah, Wally c'est un père pour moi donc mis à part musique du dara euh, sama père la donc c'est un père que je respecte et que je remercie aussi déjà trophée bi moom laa ko tuddee waxuma ko sax mais moom laa ko tuddee te maa ngi ko fas yéene incha allah fête demain euh, ci Kaolack nangaan ci kàttanu yàlla père Lati Diop dégeen bàyyi Dior Demba dégeen Koura faale dégeen Demba Sé dégeen bàyyi maa ngi ñëw Kaolack incha allah. merci jaajëf.